sallallahu ala nurullah muhammad ibni abdillah sayyidat al-hashim sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ziar ñëpp kenn ku nekk turam ak santam am na seen sopp rasul moodu mustabaru di tàggat yonent bi loiseau du prophète sallallahu alayhi wa sallam di baal ñu baax di baal ñu baax di leen wax ni rek euh, ñooy kenn dëkk fii ci Ouest Foire ci ginnaaw kër Papa Thion di leen wax ni euh, démb dafa am ay ay nit ñoo xam ne ñu ngi wër di cambriolé ci euh, appartement yi di wax ni man ci victime yi laa bokk su leen di leen wax ni démb lañ ñëw fii cambriolé yi jël yenn bagage yi ak yenn xaalis yi daal di yóbbu di wax ngeen moytu rek daanaka ngeen kii bi moo nekk ni démb lañ fi ñëw cambriolé ko dajji ko dajji ko su leen jaar fi leen jaar daal di jël yenn bagage yi eh, ak xaalis yi ñu fi nekkoon kon nag di wax ni di am di jàmm bi dafa yéeme lool surtout ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci booy Sud Foire Ouest Foire Nord Foire ak jëm Almadies ak eh, Sacré-Cœur jëm Fann Résidence yenn yi daal ñaan yàlla na yàlla sàmm ñëpp leen tawféex kon yokk xéwali bu baax déglu bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu